Vive la liberté de la presse. Merci beaucoup. Je l'ai dit, nous l'avons dit ensemble 17 fois. Nous l'avons dit 17 fois. Et ça, c'est important. 17 important. Malheureusement, on est en train de regresser et le Sénégal a perdu des places. On a perdu 17 places. Il faut qu'on soit vigilant. ces images-là dañuy def le tour du Sénégal et nous sommes tous malheureux de voir cela li ñu bëgg gis en tant que Sénégalais en tant que citoyen mooy c'est les belles images te mën nañ ko mais lii xew si Maïmouna Ndour Faye véritablement c'est une c'est honte mais lii waru bett kenn warul bett kenn et je le dis devant les autorités qui sont là ñaata yoon lañ taxaw di ndaxarlu pour le cas d'un journaliste ñaata yoon lañ def ay pour le cas d'un journaliste ñaata yoon lañ def pour le cas d'un technicien de l'information de la communication barki Demba Ndiaye c'est ce qui sont censés nous protéger nous agressent heureusement que le ministre de la le ministre de l'Intérieur a reçu une délégation de la CAPUD par rapport ak situation ces jeunes reporters que vous voyez sans ñi on ne peut pas avoir d'information sans ces jeunes reporters on ne peut pas être libre parce que celui qui n'a pas d'information n'est pas libre te ñii ñoom ñoo nekk sur le terrain di rey seen bopp matin au soir pour apporter la bonne information et si vous les agressez et si vous les empêchez de leur travail ceux ceux qui n'ont pas euh, qui ne sont pas des techniciens de l'information ñoom ñooy bëgg traiter l'information mais les techniciens de l'information boo leen bàyyi ñu liggéey nañ def liggéey bu rafet liggéey boo xamante ne kenn ku ne di nga ci gis sa bopp kenn du ne ñii dañooy par parloo mais par parloo mere c'est parce que ceux qui sont censés faire le travail non pas pu faire le travail merci beaucoup maa ngi leen di nuyu